قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يهديكم في أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكسف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون أمن أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نصرا بين يدي رحمته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 والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم الله من الشيطان الرجيم إن في اختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار ربنا أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 Eh, daarul alimul xabir ci Touba daarul xadim ngiraaneen kii wax ak yéen mu ngi tudd Ousmane Mbaye kon tey dañoo ñëw rek ànd ak waa Touba Vision ci leeral daara ji fan la cosaanoo ak aw doxinam daara ji mi ngi cosaanoo daara ji mi ngi ko sos ci atum 2003 boobaak léegi tamit am na ab diir mu nekk daara joo xam ne daaray jàng alxuraan la ak daaray jàng xam-xam ñi fi mokkal alxuraan ay góor ak jigéen li fi jot a jàngee biñ ko sosee léegi ñu ngi njëkk am dongo bu mokkal ci atum 2005 boobaak léegi tamit ñu ngi wéy di jàng di tari alxuraan di ko mokkal di am ay dongo yoo xam ne tamit ñu ngi beqi di am ay dongo yoo xam ne ñu ngi bind ay kaamil di jàng seen diine boobaa léegi tamit ab lim mokkal na fi ci alxuraan loo xam ne euh, neexut a takk waaye nag xaa dañ ciy wax liñ jàpp rek ci liñ jàpp ci suñ xel daal li fi mokkal ci ay donga tool na ci cent cinquante ya ay donga ci lim boo xam ne ay góor ak jigéen la ñi fi jot a bind ci ay kaamil tamit buñ ko xoolee day mat 77 ay kaamil ci ay góor ak jigéen nga xam ne bind nañ ko fi jamono ji tamit am na fi ay donga yoo xam ne ñu ngi beqi am ci ñooñu tamit ñu ngi bind ay kaamil li fi nekk ci luy beqi rek eh, jamono ji war naa toll ci gën gaa gàtt fanweeri xale am tamit ñu ngi bind kaamil gën gaa gàtt toll na ci fanweeri xale ci yoo xam ne ñu ngi beqi jàng nañ teer ba wattu ko ba di ko beqi am ci ñooñu tamit ñu ngi beqi nañ ko ba ñu ngi koy bind xam naa daal ci gàttal rek ñu jot leeral loolu kon waaw jafe-jafe moom xam naa du ma ne bëri na ci bëriwu ci ndax daara moom saa su doxee rek ma ngay am ànd ak ay jafe-jafe daa baaxoo loolu waaye nag li ci ëpp moom mi ngi baax jafe-jafe yi new na lool xanaa yenn jafe-jafe àdduna kay mooy li nga xam ne mooy béréb bi ñu nekk nga xam ne am na mbooloo te xaw naa xat buñ fi dajee léeg-léeg mu tàng loolu daal moom ñoo ngi koy jànkonte ci jafe-jafe ak lu mel ni nawet tamit ñi am jafe-jafe pour jàng mu normal ndax léeg-léeg bu tawee eh, ndox mi léeg-léeg mu xaw a ñëw ci biir mbaar mi ñi am ay jafe-jafe yu mel noonu waaye jafe-jafe daw yeeg yooyu moom bariwu ci ndax dara du ci ñàkk waaw bëgg nañ ne kuñ ci jàppale moom kilifa yi diine yi buñ ko mënee baax na ak bépp murit boo xam ne rek day fas yéenaa liggéey lislaam ñoo ko ci woo mooy kem kàttanam ndax daara ji ay daara la du ab daara du benn daara ay daara daara la eh, lépp nag yéen nekk ci loxol kenn kon dana laaj ay jàppale yoo xam ne du ci mën a ñàkk ndax lépp kenn mënu ko te lim nësër ci ay nësër yoo xam ne daara ji bëgg na ko loolu il ñi def ci ay jéego yoo xam ne ñi mën dara te lislaam ñor leen dañ ci mën a jàpp kon daal ñu ngi tàllal ñëpp loxo koo xam ne mu mën na cee jàpp mu jàpp ci waa jàngum suba mi mi ngi tàmbali huit ba une heure bu ñuy jàngoon tamit ñu ngi tàmbali trois heures ba dix-huit heures trente seize heures trente ah astafurlah dix-huit heures trente waaw bu ko defee buñ jullee timis lañuy tàmbali njàngum timis mi ba noddu gee loolu lépp tamit dañ koy ànd ak góor ñi jigéen ñëpp ñoo koy ànd ak ñoom fajar gi quatre heures lañ koy tàmbali ba ba set waa quatre heures ba ba moom góor ñi dañ jàng jigéen ñi buñ salaatoo la ñuy daal di ñëw ñi ñi jàng ñi ci jot a jege tey jàng si buñ salaatoo dañuy ñëw jàng si ba tari bu dee ñi nga xam ne ñoom ay internat la ñu féete ci biir moom bu ñu yeewoo rek tàmbalee jàng am na internat góor ak jigéen daara ji am na ko waa internat bi moom it bu ñëwee danañ ko leeral am na góor am na jigéen daal ci ci béréb bi lépp képp koo xam ne tamit bëgg na doomam jàngi internat bu dee góor la bu ñëwee dañ ko wax yoon yi muy jaar ba egsi bu dee jigéen tamit bu ñëwee dañ ko wax yoon yi muy jaar ba egg ci fi daara ji xanaa ñu gën ñee dimbali bu baax rek ci jàppale ñu bàyyee ñu xale yi ndax léeg-léeg li ngay am jafe-jafe mooy jàngal xale ba am ci moom yaakaar ñu yàqam njàngam muy góor muy jigéen ndax dañ naan toll na benn ans boo xam ne kat il faut mu dem wuti métier wala dara ba tax buñ gëstu ne Aliou kat fii mu toll mën naa egg ba noppi mu defi defi leneen waaye dañuy jàpp ne mag na rek daa war a bàyyi njàng bu fekkoon ne ku jàngi diine la du nangu doomam tollu foofu di bàyyi alxuraan di defi leneen day toog ba eggal foofu daal bëgg nañ ñi gën ñu fay jàppale baax a baax moom ci bàyyi xale ñu jàng ba eggal seen diine waaw ñoom it xanaa ñi gën a góorgóor bu baax rek te xam ne lislaam moom ala kulli haal ku ci bëgg a dund in faut nga jàng sa diine te alxuraan waxi suñu borom la kon ku di ab jullit da ngaa war a góorgóorlu jéem ko wat soo ko mënut a wat tamit nga def sa kem kattan ba fa la suñu borom yemale waaye waroo cee wane ak yaafus ba tax ngay ñàkk jàng diine ab jullit warta ñàkk jàng diineem moo xam alxuraan la moo xam téere yi majaalis yi la bu dee seen daara yi tamit xanaa ñoom moom duma leen soññi dama leen wax ñi gën a góorgóorlu rek ndax ñoo ngi ci yoon woo xam ne nii moom fekk leen ci nan leen leen labiré du ma ko man ñoo ma ci sut fuuf xanaa kay ñi gën a góorgóor baax rek te xam ne li nekk métier la moo xam ne métier mu métti la boo koy xool sax daa nur lu yomb waaye métier mu métti lool la képp ku amutug muñ rek toog ci du la yomb kon daal di leen ñaanal ñoom suñu borom dool leen a yokk baax a baax a baax ba ndam yi ñuy def ci doomi julit yi borom may leen njaboot goo xam ne it dañ ko ci def te mu yomb lool waaw borom daara ji moom it di ko ñaanal bu baax a baax rek ndax ah, nit la koo xam ne ku bëgg lislaam la moo waral mu ubbi daara ji li fi nekk ci ay mbooloo yëpp benn bëri na ci ñooñ ci agronome lañ jàngee alxuraan ba mokkal ko tourné tamit mu tiyaat leen ci daara ji ñuy jàngalewaat alxuraan ba nekk ay ay kilifa yoo xam ne nii denc nañ soxna te lépp ñu ngi ko amee ci biir béréb bii ñu nekk nii te mënoon naa nekk koo xam ne nii day toog rek lijjanti boppam yam ci te moom yëmaliwul boppam ci daara ji waaye daa yaatal daara ji ngir ñëpp mën cee liggéey man mii ak keneen ku dul man ñoo ci yem taxawaay moom dafa dafa ne ci bopp bi rek waaye daara ji daanaka mën nañ ne amul njiit ñun ñëpp ñoo ci tolloo daraja te loola ak mbaaxam ak woyofam moo ko waral ko ñaanal suñu borom dolli ko moom bu baax a baax te dolli ko xam te gën koo may xelum yaatal liggéey bi akum koom moo xam ne li mu ci bëgg rek suñu borom dana ko jàppandal du ko yaakaar feneen maam yàlla suñu borom jagleel ko baax na daal li mu bëgg a liggéey ci daara li bëgg a liggéey alxuraan lépp lay man tem yomb lool jaay xaadim xaadim waaw kon mbokk yi ba tey lii fi ñu taxaw nii boo xoolee ci liggéey bi la bokk école bi mooy fatul wahab ci daara ji la bokk ñi xam ne ñoo jàng ba mokkal di jàng seen wajur tànn ñi jàng euh, français ak arab ñoom lañ ubbil fii ñuy jàng école ñoo nekk fii kon xanaa dañuy egg ci biir rek ñu gis école bi xool ko mbokk lii mooy école bi Euh, mooy collège bi ñi nga xam ne ñoo génnee ca école bale ñooy jàll si fii di jàngee si fii ñoom it lépp ci daara ji la bokk. ok nous sommes ici à l' école Fatul Wahab école privée franco-arabe Fatul Wahab créée par Abdoul Khadir Mbacke directeur de de en même temps en même temps Serigne Dara ici à Darou Khadim il a école. en 2020, 2020, 2021 grâce à la formation au niveau du, de l'élémentaire là-bas qu'il a créé depuis 2009. Depuis lors, il tient à former les élèves durant trois, trois ans, soit disant CICP, c un c de contracté, CM1 à part et CM2 à part. Et fait, après la formation, on a toujours l'habitude d'amener les gosses euh, au centre Côte Badiane-Maille pour faire leur examen. Et après tout ça, ils décident de conserver les élèves dans la mesure où beaucoup d'entre eux ont déjà mémorisé le Coran et ils voulaient encore les tenir et les faire apprendre, euh, les faire continuer à apprendre le Coran euh, au lieu d'aller à Darou Khadim ou bien je sais Dar Rahman ou à Mbaké. Ils de tenir les élèves, leur former de la plus meilleure des, des manières qu'il a voulu. raison pour laquelle il a essayé de construire ici une école, collège franco-arabe nommé Fathul Wahab. C'est juste une durée de trois ans aussi, dans la mesure où, pour ne pas prendre beaucoup de, de, de temps sur leur âge, comme là-bas c'est trois ans de formation, ici aussi il essaye de résumer, au lieu de sixième, cinquième, quatrième, troisième, il préfère donc faire sixième, cinquième contracté, quatrième à part, troisième à part, pour leur former de la meilleure des manière. Beaucoup d'entre eux, comme je le disais tantôt, ont mémorisé le Coran. Beaucoup de ces élèves-là ont mémorisé le Coran. Et ici, nous avons un effectif de 17 élèves, dont 4 garçons et filles. Et en, quelque sorte, voici ce qu'on peut retenir, ce qu'on va dire tout de suite. salaamaaleykum wa rahmatulah beneen yoon mbokk yi lii tamit ci daar ji la bokk mooy liggéey boo xam ne ñoo ngi koy naal yàlla suñu borom indi ko ba mu egsi fii waaye boo ko gisee ci taxawaay lépp fi ne mbaar rek la amut ay néeg te ñoo ngi naal tamit mu am ay néeg ci kaw ah, ndax këru kese moom il faut mu am ay dëkkuwaay léegi nag ñu bëgg euh, mbokk yi ku ci mën a jàpp rek mu jàpp ci ba néeg yi moom it egg te mu nekk tamit bérébu alxuraan bu mucc ay boo xam ne daal fuy neex a jàngi alxuraan lay doon waaye tamit fuy dalal xel lay doon ci képp koo xam ne am na xelu jël doomam indi ko fi bu ñëwee am xel mu daal moo xam ne fa ko jëlee te kër ga ak fi mu ko dugal ñooy yem kon daal loolu moo tax ñi yaatal liggéey bi fii tuddoon naa ci ginnaaw ne xataayu béréb bi kon moo tax ñi yaatal lii léegi nag di ci woo ñëpp rek mu bokk ci liggéey bi di tàllal loxo tamit jullit yi muritul islam yi ñëpp rek wala murit yi ñëpp rek ñi def ci seen kem kàttan mbokk yi kon lii mooy primaire bi mooy école bi nga xam ne lépp ci daar ji la bokk li tax ñi ubbi ko fii tamit mooy donga yi nga xam ne dañuy jàng alxuraan ba mokkal ko seeni wayjur di sàkku ñu bàyyi dem jàngi feneen français ak yu noonu mooy tax ñu gis ne kat buñ demee ñàkk ga nga leen di ñàkk dana génn ñoom ci ci ñoom lu bëree bëri ci diine lu ñu waroon a am te duñ ko am buñ toogee ci daara ji na nga mën a def ci ñoom liñ bëgg te buñ gontoo jàng français buñ xëyee jàng français ak arab dellu ci daara ji jàng alxuraan euh, nafar beq bind moo waral ñi tee leen fii ngir ñuy jàngee fii lii mooy école bi nga xam ne mooy primaire bi gars yi ñu ngi ci biir di jàng bee ñuy jugee tamit mooy école bi nga xam ne mooy collège bi lépp bëgg a dimbale nit ñi te bëgg ànd ak ñoom ñi làqaale seen diine moo ko waral ndax bu ñu demoon man naa am français rong la ñuy jàng waaye dañu bëgg ñu jàng français beqi bind kaamil jàng diine moo waral ñi ubbi école bi kon xam naa ñu egg ci biir ngeen gis kalaas yi. ñu dem waaw école bi mooy école Madras Fatahul Hab nekk fii ci euh, Ngiraneel Daaru Xadim école la boo xam ne bu état reconnaître la. di dox ci programme état tamit waaye nag moom école formation la ndax mi euh, composé rek ci ñetti classe classe boo xam ci CE2 la mooy classe bi ñu nekk ak bi mu taxawal nii mooy cm e bi beneen classe bi mooy cm e bi kon élève bi dafay jàng ñetti at la fi def daal di am loolu mooy war ne formation la programme bi fi nekk nag programme état la comme ni mu ko waxee waaye nag français bi. ak araab bi ñoo tolloo waaw cinquante cinquante moo fi nekk nit ki dafay jàng diineem bu baax a baax waaye jàng fi tamit wàllu wàllu wàllu addunaam bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla muy école boo xam si ñu ngi am ay résultat yu baax a baax a baax dëpp mu soso ba léegi année bu jot yàlla lay dogal ay ñi fi jógee ñëpp daanaka ñëppay am certificat ñëppay am seen diplôme mu nekk école boo xam si ay jàngalekat yu yu yu man li ñuy def ñoo fi nekk ñu mën a jàngale lool sawar lool wax dëgg yàlla am taxawaay bu rafet a rafet élèves yi fi nekk tamit doon ay jàmbaar nangoo jàng nangoo sonn wax dëgg yàlla moo tax euh, dañuy sant tamit parents yi nga xam ne ñoo fi indi seen doom yi ci école bi ndax école la boo xam ne moom ku fi indi sa xale sa doom yaakaar naa doo ko rëccu ndax bu dee diine rek ak yar moom doo na fi am na fi sëkk ndax borom école bi sëñ Abdou Khadir moom koo xam-xam ne yooyu moom du ko caaxaane da ciy da ciy da ciy sonn lool moo tax gis nga leen ñoom ñëpp dañuy muuru sol lu jot amul sol ay fant yu gudd ak yooyu yëpp wax dëgg yàlla ay meesoog yëpp dañ ko fi aaye ndax yar moo ko tax a jug yar nit ki muy dox ci ci anam wu am solo woo xam ne ñu ñëpp daal am nañ ci mbégte euh, donc kon moom programme bi comme ni ma ko waxee rek euh, français bi ak arab bi ñoo tolloo amul benn bu ëpp moroomam nit ki li muy jàng ci ay heure ci français lu tolloo lay jàng ci ci arabe te yaakaar naa boobu programme amul programme bu ko gën ndax topp benn langue bi rek bu dee arabe bi rek nga topp man nga am ay gàllankoor fii ci Sénégal bu dee français rek nga topp tamit man nga am ay gàllankoor ci côté diine bi moo tax dañoo fexe ba def ko ñu tolloo français bi cinquante arab bi doon cinquante programme tamit programme état la ki caageenu programme bu ñu tëral suñu bopp nii rek mais état la programme état la képp ku fi am diplôme diplôme bu état reconnaître la bu mu nangu la comme ni mu nangoo yeneen école français yi seen diplôme noonu la nangoo fii euh, diplôme ku fi am diplôme foo dem ci état mën nga faa jàng boo bëggee liggéey tamit mën nga faa liggéey ci njàng te njàng moom mu mucc ayib la ñuy jàngale moo xam ne wax dëgg yàlla résultat yi ñu am wane na loolu du caageenu lu ñuy wax la ñuy waaye ay résultat moo ko wane ku gëstu bu baax a baax année yi yëpp bi école bi soso ay résultats yu baax a baax a baax la ñu am au niveau de département beeg euh, ci réew mi yëpp résultat yu baax a baax lañu am kon mbokk yu baax a baax la ñu hmm? ah, waxoon naa ko am na sarde tamit hmm? école bi am na sarde am na sarde boo xam ne pour xale yu ndaw yi ñoo fay ñoo fay jàngi waaye école bi tamit dañ koo créer ngir dimbali ñi nga xam ne xañ na seen aas àgg na fenn fi c'est-à-dire ñoom dañuy jàng ca daara ja ba mokkal xam nga ku jàng ca daara ja ba mokkal ah, day xaw a day atam day xaw a avancé loolu léegi moo tax bu ñëwee bu bëggee topp école normal yi bëgg a juróom-benn at doog am certificat loolu day metti ci moom moo tax ñu keree woon saari école yi mel nii xam ne ñetti at rek la waa ji def am certificat am bu ko defee génn dem ne am njàngam loolu daf leen di dimbali bu baax a baax a baax moo tax ñu ñu ñu créé woon école bi doxale programme bi nii waaye programme bi la en tout cas programme état la beneen école bi état daf koo reconnaître du caa yenn privé la nii rek buy dem nii waaye bu reconnaître la waaw ah, waa faral di tari alxuraan di mokkal ren de diggante daaw ren nga mokkal ci ab lim mi ngi toll ci 42 42 xale nga xam ne moom wattu nañ fi téere bi ba tari ko diggante daaw ak ren waaw dañuy faral di def ak feet bu tari alxuraan ba noppi dañuy def sa koor daañu def organiser benn feet ngir sargal ñi nga xam ne ñoo doon góor-góor di jàngi téere bi suñu borom bi ba wattu ko tari ko ci seen kanam waajur de ñu defal leen ak feet ngir nag ñu seen mbokk yi nga xam ne seeni moroom lañ te nangu ñoo jàng ñi def seen xel ci góor góorgóorlu jàng ak ña nga xam ne ña nga ci biti te jàngiwuñu woon ñi doog a góorgóorlu bëgg a dugg ci daara yi ngir ñoom it jàng alxuraan ba man koo wattu comme ni ko seeni moroom wattoo bañ defal leen lu mel nii waaw feet gi ci biir weeru koor gi lañ koy faral di jàpp ren ñu ngi ko jàpp ci fukki fan ak juróom eh, ci eh, ñetteelu ñetteelu alxames ci ci biir koor gi ñetteelu alxames lay doon ci biir koor gi mën naa doon fukk ak juróom benn mën naa doon fukk ak juróom ñaar waaye ñetteelu alxames lañ ko jàpp ci biir koor gi incha allah bég leen waa ahlal qur'aan bég leen yéen ñoñi al qur'aan yéen a raw fii te yéen a raw fee yéen ay njabootu rahmaan alquran yenaraw fi te yenaraw fe yenay njabootu rahman dégg naa ëllëg bi su quran day ram gaayam ña ko daan jàng di ko wattu kon gaañi buñ deñ di ko saytu ña ko daan jàng di ko naraw feeye nay njabootu rahmaan qur'aan leer laagu jolli ku ci ngoy dootoo masa jomme qur'aan leer aha ku ci ngoy dootoo masa jomme daf ñuy bégal di ñu aar di ko jàng duñ ci masamaar daf ñuy bégal di ñu aar di ko jàng qur'an feeye nay njabootu rahmaan del di ko téere bi amul lu ko gën weer kon nañ leen ci ngoy bu dëgër téere bi amul lu ko gën weer kon nañ leen ci ngoy bu dëgër mukk-mukk luy nen du ci raax yàlla buur bi moom ki ko wax du ci raax yàlla buur bi moom mooy ki ko wax bég leen qur'aan yéen ñooñi al qur'aan bul di gàdday alquraan daf lay dàqal yow shaytaan bul aha daf lay dàqal boo koy jàng di nga am ndam texe ñeel na jam yi ko xam di nga am ndam texe ñeel na jam yi ko xam bég leen waa ahlal qur'aan yéen ñooñi al qur'aan jàngil jàngil alquran téere bi moo bi moo bari ay kemtaan muku muku luy nen du ci raax yàlla buur bi moom mooy ki ko yàlla buur bi moom mooy ki ko wax bég leen waa ahlal qur'aan yéen ñooñi al qur'aan yéen a fii te yéen a fee yéen ay njabootu rahmaan